ak peintre ak peintre peintre moy njaago yu peinture jarul outil tabaxal sa keur rek jox ko gouvernement Macky Sall bi ñu peinture manam maanaam. ñoo dàq peinture ci aduna manam ah mais ñun suñu chantier la ñuy peinture di inaugurer inauguré ñom ay chantier jàmbur ngeen doon peinture. c'est pas vrai soxna si bien vrai que l'état est une continuité mais aéroport bi Abdoulaye mo moo projet bi. bim mu ko joxee Senghor ak Diouf dañ ko ranger ci tiroir yi loolu ñëpp gis nañ ko Sénégal defal recherche dugg ci internet bi le président Macky Sall en personne l'a reconnu ay idée wu Ablaye Wade la ay concepts qui ont été conçus par le président Wade loolu le président Macky Sall l'a dit gis ngeen ko parce que yéen a doon def euh, euh, rétrospection xawma lañ koy wax xaw machin mais loolu amna té du ben yoon du ñaar yoon mais président bi ko. mais li nga wax mané wax nga ko président bi ko. mais munu ko mais parce que c'était visible soxna si. dafa leer. mel nañu façon yu mel na Sénégal yo xamni ci idée wu Ablaye Wade la man limay ñaan président Macky Sall moy na wu soxna si on peut être des adversaires mais pas des ennemis. mais mais mais. Mame Marek, rek 9 ans ou 8 ans nous l'avons cheminé ensemble on l'a fait plus de 15 ans Mama ak Dans dama jàpp ne Junior ju ñaaw ju nekk war na de parce que chaque chose doit avoir une fin na fàttaliku démb. d'accord Tal otoom sol dàllam dem seeti Abdoulaye Wade bàyyam baalu ko ak taalal ko loxo mu ñaanal ko mu ko man loolu laa gis soxna ingratitude baaxul il faut jamais être rancunier Maki tel que je le connaissais il m'a déçu man j'avais beaucoup de respect et d'estime à l'endroit de sa personne moi je le respectais beaucoup il savait man chaque week-end Macky daf ma doon may deux millions quand il était premier ministre Il ma auto, joxoon ma lépp defoon ma comme Rakam. Macky tëj ma man Karim tëj ñëpp ak jaar-jaaram ak ñun jaar ko ab Abdoulaye lii mënoon na ñàkk seen diggante ñoom ñaar keroog bi ma gisee nigeria l'ancien président créé convoqué une réunion trois présidents yi fa jóge ñëpp ñu toog réunir autour d'une table keroog j'ai versé de larmes ndax fi ñu jaar ak Macky Sall tey liy dox di ba dem ak Abdoulaye Wade premier tour de PDS moo ko mën a may. kenn mënu ko jox lu dul Perez te bés bu yaakaaree ne sondage am yi muy def wala ay tëj kaso mooy tax mu yàgg fi boobu yàlla dafa noppeekul si moom ndax xalaat na yàllaa ko fi teg lii dëgg na ko ay conseil am wax mooy mu jubóog baayam dem baalu ko àq.